julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew ko wër jaajëfal aji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara démb bi njëkkati jataay bi ñoo ngi ci manhajul xayaati as-saaliha système de vie idéal bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indil xeet wi indil ko xeet wi xeet wi gàttandu ko gàmmul ko gàmmul ko toog di ko déglu bëgg mu wax ñu dégg mu santaane ñu jëfe mu cere ñu bàyyi gën ci xeet yi mu indil ñu quarante points yoo xam ne mooy tax xeet wi gën xeet yépp raw xeet yépp mën ci xeet yépp su fekkee jëfe nañ ya cay ndigal bàyyi ya cay tere bi njëkk ci jotaay bi démb ñu tolloon ci tomb fukkeel ak juróom-benn numéro 16 mu ci doon tere lekk alali pénc mi ciy tappale mbokk yi alal borom bi àtte bu mu àtte ci alal rek bu sévère la atte bu mu atte ci alal ku sàcc dégg nga dañu dagg loxo ba alal la miraas sunu borom nee na wóoluwu ci kenn ku dul moom ndax alal la ci kenn ku dul moom ndax alal la moo tax azaka moo ko séddale miraas moo ko séddale ak càcc moo ko àtte penc mi nag léeg-léeg nit jëlub ganaar ñu ne dafa sàcc def ca kaso ba nit jëlub milliard milliard ñu ne dafa détourné moom sàccut dafa détourné mu néew waaw utal ko weneen turu bokk tëg tur bi te léeg-léeg sax nag buñ koy tëjit fañ koy tëj du bokk ak sàcc ganaar fañ koy tëj yenu na nu yàlla yërëm eh, loolu la continuer teg ca fukkeel beeg juróom-ñaar wala tanaabasu bil alqaab bàyyi leen xasante ci ab juddu bàyyi leen xasante ci ab juddu doomu aadama juddoom bi defu ci dara mukk deful demande de juddu ah tax mu juddu juddoom bi defu ci dara dara dara ma wax la ko tey kon di xas nit ci juddu di ko xas ci sant woo xam ne moom la sant penc mu tardé loolu leen tax a tardé noo sant sàll foo dëkk càlle gan càlle càlle sàngam kuy sa baay diw kuy baayam diw lu tax di laaj rek pour am foo xam ne mën nga faa taxaw xas maruxu jë wala paati borom bi ne na xastante ñu def ci ci ci ci ci juddu yi di ko def ci sant yi nee na pinc mu tardé loo leen taxa tàrde waaw yow métier sàngam nga yor kon doo jël ci sunu njaboot yow lu tax ngay nopp ku liggéey ci mecc sàngam te kat métier moo fi gis am na métier mu ko niiru te mécc mi ko niru nangu nga caa maye sa jabar sa doom te mécc mi nangu woo ko maa la ko wax waaw maa la ko wax bëgguma tudd mécc yi ndax mécc penc bi dee pencum aada waaw penc bi dee pencum aada ndeysaan waaye daal wala tanabasu bil alqaab bay leen xastante ci ay sant ak i tur kullukum min aadama wa aadama min turaab waaw inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa xabail li taarafu rek la inna akramakum indallaahi atqaakum fay mën a bokk ak noo mën a sant boo amee jom gën ñëpp inna akramakum indallaahi atqaakum ku la mën a jur noo mën a sant foo mën a bokk boo amee jom gën gën ñëpp wala bokk ci ñi gën fukkeel beeg juróom-ñett ci système de vie bi waaw Pam Njóogu Sàll mooy bu leen xeebante bàyyi leen di xeebante hmm? waaw bàyyi leen di xeebante am lu kee amul rek tax nga xeeb ko te yéen bokk nu ngeen fi ñëwee yéen a bokk nu ngeen fiy jógee judd na ngeen ñëwee dee na ngeen ngeen fi jógee wële daag maata diggante ba lu nit di xeebe aw nit amu fi sallallahu alayhi wa sallam nee na kii xeebaate moo yées ci xeet bi waaw bi xas ni bi mi riin min alcharri an yaxira an yaxira axaahu almuslim nee na jullit bi xeeb moroomu jullitam moo yées ci njullite gi ah oui ndeysaan ah mu yéen mbokk programme yonent bi nekk te riche na waaw ah, riche na trop bam njóogu sàll waaw ah, riche na de fukkeel beeg juróom-ñeent wala yaxta baadukum baada bu leen di jëwante bu leen di jëwante yéen jullit yi bu benn jullit di jëw moroomu jullitam di ko wax loo xam ne su agsi woon nga noppi di ko necc li loo xam ne yow dong yaa ko xam di sulli ay mbóotam bàyyi leen jëwante bi yaay Maodo day noonu na bàyyi naa jëw ma ne ko ah mun ma Alioune sàll bàyyi naa jëw jëwa bon ndeysaan ku mën a jëwa ci de jàkkaarloo ak yow wax la ko moom ma gënal ma ne ko ah jàkkaarloog ma ko ko mu mer nga mer wala ngeen durante yu korpañ moo gën jëw de mu ne ma bàyyi naa jëw jëwa bon ndeysaan yaayi Maodo yal yàlla ko yàlla yokk yërmande ndeysaan mu nga daaru salaam ma léeg-léeg may àgg fa ndeysaan fekk fa góor gu baax guy toppatoo barab ba mu ne ma xawma la de ma ne ko déedéet mu ne ma xawuma it mën na ko déedéet mu ne xaw ma soxna siit ne ko déedéet mu ne waaye li ma la fii séen <laughs> li ma la fii séen daa bari mu ne ko su ma sañoon saa mu ñëwee mbàkk su ma xëyee ñëw fi ndax loolu loolu lañ séq ma moom meer soxna Jóob yaay Maodo di san bu leen jëwante ay tabarkalla jëw ci penc mii suñu magum daara sa Ibrahima Xalil loo nee na xam naa li ko yàlla màndaxeeg lekk yàpp moo tax mu neex ci nit ñi mu ne waaye ëpp naa def di jëw ba sekkaritu ñaar fukkeel bi ci tomb yooyu mooy wala tëjassasu bàyyi leen di luñ ñu tajassus mooy luññutu luññutu yëddu waaw tajassus léeg-léeg nit ñaa ngi koy def ci téléphone yi fexe ba téléphone diw lum ca wax nga yëg ko ki koy def yonent bi alayhi salaam nee na dañu war na tàngal beteex ba mu tàng sotti ko ca nopp ba léeg-léeg nga dékku ñu euh, audio bi dafa dafa rëcc waaye bu rëccee nañ ko bàyyi mu dem waaye déedéet dañ naan audio bi dafa rëcc ñépp kiliko nga gis mu cent vingt quatre mille vies ci une heure de temps ah ki dugal audio bi mi ngi changer sa programme bi dugal la ci duga déglu loo xam ne la doon àtte ba mooy tàngal bi sotte ko sab nopp bu kenn la ñut toog ak madam téléphone am di sone ngay xool ban tur lañ ca bind lu mu la ci fekke lu mu la ci fekke waaw ak itam ku lay woo lu mu la ci fekke wala te jëssasu te kat tajassus ku ko def rek am am am lu la seytaane wan saa boo koy tàmbali seytaane wan la lim lay wan nag di dagg sa xol bi waaw monte sa tension bi wala mu wàcc ko <laughs> wala tajassasu tëdd leen rek nelaw jax na tàkk adduna ñi ci gën a noppalu mooy ñi jëfe lii alxuraan di tere ñu bàyyi ko li muy dégle ñu di ko def ñoo ñoo gën a noppalu ci kaw suuf waaye ku topp yenn yi seytaan yi dugal la fa xam ne baaxul wala tattabi'u xutuwaati kon nag wala tajassasu bu leen lu ñu tub diw mi li wax bëgg naa koo xam lu ci sa yoon fi muy dugg bëgg naa ko xam lu ci sa yoon wala tajassasu waaw système de vie bi sallallahu alayhi wa sallam indil xeet wi kere bi mu wàccee aéroport ak ñaari saagam yi ñu ngi ci benn saag bi jël ci quarante point waaw quarante article ci ci saag bi ci la ñu nekk ni muy benn système de vie boo xam ne bi bu ñu fexee ba jullit yi di ko dund ci penc bi nun ñëpp na am jàmm ñaar fukki ak benn ijtanibu kathiran min adh-dhann moytu leen lu baree bari ci njort bàyyi leen deme njort bàyyi leen dema njort léeg-léeg nit jortu ci nit lu nekkut wax ko ci nit kooka jàppal kii loola te dara amut ndax penc mi léegi léeg-léeg ngay nuyoonteeg nit di wax ak moom ba benn bis dootoo ko dégg dootu la nuyu boo ko nuyu du la fay ba la rombee xool géej ndekete daa am ku foog dara dem yët ko loola mu foog te dara amu ci yàlla àdduna tukki na ijtanibu kathiran mina zann ñaaw njort ñaw njort te nit ki li nga xam ci moom bu ko njort yàq waaw xam nga nit ki am ko jort ci moom lu amut yët la yëf ya ndax am na ci nit ñoo xam ne ñaar ñuy ànd la ñuy bañ a gis waaw benn baas jaan daf daan wax ne la ko yàlla yërëm dama daan wax ne boo fi jógee vendredi samedi dimanche lundi nga xëy si ma ne ko ah mu ne nga defe ne benn baas mi fi nekkoon vendredi mooy benn baas mii ñëw tey ma ne ko ah mu ne mu ne ma kon réer nga allahu akbar mu ne bi ñuy tàggali koo vendredi vendredi dox fi samedi dox fi dimanche dox fi su ma ñëwee lundi mën naa ñàkk nekk benn baas mi fi jóge vendredi waaw ma ne ko ah mu ne ma ndax nit mën na maa gis wax ma ci yow loo xam ne day tax ma soppiku ca vendredi ja wala samedi ji mbaa dimanche ja bu lëndee ba mu nuyu see du ba mu nuyoo duma la fay ma ne ko looloo yàq penc mi waaye analyse bu am solo la ci doon def ndeysaan benn baas ndax daf daan jaar sama bureau <laughs> waaw booba dama fa amoon bureau ndeysaan léeg-léeg mu jaar sama bureau waxtaan waxtaan yoo xam ne tabarkàlla yenn taa yi ñu dugg ci philosophe yenn saa ñu dugg ci iman ba tawxid mbokk yi ijtanibu kathira min adhann waaw mu ne rafet leen njort ci seen mbokki jullit ñaw njort baaxut ñaaw njort baaxut day tax nga bañ ñépp kuy def lu la wax sa noppit nga nga gëm ko léegi tey doo ànd kenn ndax am na ci nit ñu yàqkat yu bari Fallou Cissé nag moom surtout maam kenn mësu ko kenn mësu ko koo mënal waaw moo tax mu dund pee ba ni mu fi jógee Fallou Cissé boo ñëwee ne ko diw nanga mu naa bëgg nga mu dégg ko nga ne déedéet mu ne na fi yam allahu akbar diw nanga bëgg nga mu dégg ko nga ne déedéet mu ne kon na fi yam ah, man lu nit di bañ ki nga koy wax dégg ko ni mu ko bañe laa koy bañe ay eh, way Fallou Cissé way mu ngoog kon projet bi ma mën hajul xayaa assaaliha yonente baa ngi koy continuer quarante point yi vingt deuxième point udxulu fi silmi kaafa bàyyi leen rek dugg ci dara réservé réservé wu <laughs> dugal sa bopp bàyyi li ci des mu ne mu kaafa dugal leen lépp kuy dugg ci jàmm na sa lépp dugg say loxo jàmm say tànk jàmm say bët jàmm say nopp jàmm kaafa udduxulu fi silmi kaafa yéen ñépp dugg leen waaye dugal leen seen lépp ah lépp da gis jigéen joo xam ne ji dugg na ci lislaam waaye bopp duggagul <laughs> une femme ndeysaan bu dugg ci lislaam waaye boobu ba duggagut du ko muur du ko sax musóor waxuma laa di ko muur te ma ngi cay teg léttu ca bokkut kon moom ab julit la dugg na ci lislaam waaye boobu duggagut gis koo xam ne ki tànk ya duggagut gis koo xam ne ki làmmiñ waa duggagut boobu nag moo gën a bari yaa ci lislaam mais sow làmmiñ lislaameegut allahu akbar mu ngi ci lislaam waaye ak aw làmmiñam lislaamee gut mën naa saaga ndax làmmiñu lislaamee gut mën naa xaste ndax làmmiñu lislaamee gut mën naa jëw ndax làmmiñu lislaamee gut am koo xam ne ki bët yi moo lislaamee am koo xam ne ki nopp yee lislaamee gut nopp yi mën naa dégg déglu lu ne yàlla nu jàll musal yàlla ñu ñun suñ lépp rek yàlla na lislaamee udduxulu fi silmi kaafa ci waaw waaw na lépp dugg waaw na cër yépp dugg na ñépp dugg kaafa bu dara des waaw ku say tànk dugg doo dóori pooj waaye jullit buy dóori pooj mooy mën naa nekk ci lislaam mais tànk yi duggagut ñaar fukkeel beeg ñett wisaa huyitum bi taxiya fa xayu bi axsana minha dee leen nuyoonte dee leen fay nuyoo de leen nuyoonte jëleen fay nuyoo kuñ nuyu nanga fay nuyoo bu gën a rafet ndax ñàkk a nuyoonte day day day la dañoo meroonte te ay jullit duñu meroonte dee leen nuyoonte wisaaxu yutum bi taxiya fa xayu bi axsana minha aw rudduha waaw bu leen nit nuyoo fay leen ko ba wis ko waaw bu leen nit nuyoo fay leen ko ba wees ko su ngeen ko mënta fay ba wees ko ngeen fay ko te tiye wis bi waaye nit nuyu la fayoo ko bàkkaar la maa ko wax nit nuyu la fayoo ko bàkkaar la moo xam da koo mere moo xam daf laa mere moo xam daa génn ci parti bi moo xam dafa contre sa waay lu man di mel bu nuyoo fay leen ko mhm. bu nuyoo fay leen ko ñàkk fay nuyoo bàkkaar la waaw ñaar fukkeel beeg ñeent ci système de vie bi wabil waalidayni ihsaanan noté leen ko wabil waalidayni ihsaanan fonk leen seen ñaari waajur programme bi yonent bi indi woon fonk ñaari waajur ci la bokk ndax nit ki ginnaaw yàlla ñaari waajuram ñoo ko fi indi ba mu fi ñëwee buñ toogoon ci moom mu dee buñ ko sànni woon ca mbalit ma mu dee ma la ko wax buñ ko sànnee ci mbedd mi mu yaru yaru mbedd mi dee dee gu xonq nga sëriñ sàmbay daan jàngale kon ñaari waajur ñoo la ñoo la fi indi waay waay fonk leen fonkal sa ñaari wajur ndey ak baay mu ne am ne rawatina ndey rawatina ndey waaw ndey mi nga xam ne moo jur sa mag jur la jur sa rakk te yéen ñett ñëpp kenn ku ci nekk ëmb na la juróom-ñeenti weer bisu wasin ba ngay ñëw moom muy dem ba mu yàgg ñu ne mucc na mu mujj mujjul dem fomm na <laughs> fomm na waaye dëng sa ñaari wajur baaxut ku ko def doo am fii dara doo am fële dara ku ko def doo am fii dara doo am fële dara dëng sa ñaari wajur moom kenn mënu ko def ba noppi dribble ba jàll mukk mukk kon système bi yonent bi jàngale fonk ñaari wajur daf cee bokk gone day fonk ñaari wajuram waaw booy bëgg a dem fenn tàggu leen boo ñëwee yëgal leen waaw maa ngi ànd ak benn xale bu ñuy wax Alpha Diallo ma nga fële ci masjid dund ci ñoom Oustaz Ahmed Dam léeg-léeg bu ñuy génn dakaar daf ñuy daf ñuy daf ñuy dawalal waaye buy départ day woo papaam ne ko noo ngi dem Saint-Louis te ñëw bu àggee ba Saint-Louis ne ko àgg nañ Saint-Louis bu fay départ ñëw ne ko départ nañ bu agsi ne ko agsi na man dama ko ci mujj sax ñee ndeysaan kon nag fonk nañ nañ fonk suñu ñaari waajur ñaar fukkil beeg juróom mooy fonk suñuy bokk ak jirim yi fonk sunuy bokk ak handicapé yi waaw handicapé yi nga xam ne xëy na ay bëtam moo fi nekkut wala koo xam ne benn loxo moo fi nekkut am ko xam ne sa léeg-léeg ñaari loxo am koo xam ne kii tànk baa fi nekkut et cetera et cetera ñu tuddee la ay handicapé ku manqué benn cër mbaa ñaari cër te kat léeg-léeg ñu manqué cër waaye seen xel nag manqué wut nga gis koo xam ne ki cëram yépp mat na waaye xel maa manqué fa innaha la amal absaaru walakin amal xulubu lati fi sudur sudu borom ma ko wax moo tax penc mi ku dégg wolof di wax gumba silmaxa lay wax ku dégg wolof silmaxa lay wax waaye du wax gumba fa innaha la amal absaaru walakin taamal xulubu lati fi sudur mu tax ku dégg ku dégg wolof du wax gumba lu mu wax silmaxa hmm waaw waaw ndeysaan kon looloy tomb ñaar fukkeel bi ak juróom ñaar fukkeel bi ak juróom benn wa atimu al baais al faqir bokk leen li ngeen am ak faqir yi bokk leen li ngeen am ak seen mbokk yu faqiir yi hmm? waaw nit day jàng bokk ak i bokkam alaaji dooro nit day jàng bokk ak bokkam ku am te bokkook say bokk la nga am ci yàqu la jëm inna balawnahum kama balawna ashaabal janna waaw ku am bëgg lekk yàq bàyyi say bokk la nga am ci yàqula la jëm jàngale inna balaw na am kama balaw na asabal janna denc ay milliards say bokk di xiif jaaduwul normalut denc ay milliards say bokk di jaaxle jaaduwul normalut hmm? kon bu moy ñaar fukkeel bi ak juróom benn bu nu dégloo waxtaanu fajaru vendredi déglu waxtaanu fajaru samedi déglu waxtaanu fajaru dimanche dana ñëw mottali manhajul xayaati assaaliha waaw système de vie waaw idéal waaw wala euh, projet de société société idéal alayhi salaatu salaam indiloon ko xeet wi ci bi mu juddoo ci leelatul mawlidi nabi jégalu soxna yi jégalu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër ak suñu fa rekk tey jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëcc ci xibaar yi ñu ngi nee taxaw seen seeni këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar ci toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaaneen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bi di c 3 la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ca def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataat wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu